Moussa dafa ñuuloon yàlla na ko dugal sa loxo sa poose boo ko génnee mu weex tàll ku xees génne loxo mu weex mooy kéemaan wala ku ñuul génnee loxo mu weex ku ñuul na nga dem seet sama doom bi sànq Cheikh Yaacob mi ngi ma naan papa li ma bëgg mooy booy waxatee del tudd téere yi bu loolu ñuy di nga dañuy sonnal mu ngi ci benn téere anglais mooy hundred amazing facts about the Negro téeméeri dëgg yi dul jóg mukk te nit ku ñu la leen moom hundred téeméeri dëgg yoo xam ne mënut a jóg mukk te nit a ko moom nit ku ñuul boolee da nga fekk Moussa nit ku ñuul la woon fa kon Cheikh tooke bi dem na anam tudd naa téere bi kon aywa ñu ne encore gaalu yont yàlla nuuhu ba muy depp ba muy départ dañoo ne bu kenn sëy ci biir gaal bi parce que bu nit ñi bare du ñu xam kañ la ndox mi di jeex tuufaan am jigéen ñu gis mu ëmb ci biir ñu ne ko ci gaal bi nga ëmbee mu ne déedéet yonent yàlla nuuxu ne ko bu fekkee ci biti gaal bi nga ëmbee sa doom yàlla na mel ni ñun weex tàll bu fekkee ne ci biir gaal bi nga ëmbee nga weddi waxu yàlla yàlla na indi beneen melokaan bu kenn xamul ñu ne doom bi juddu daal di ñuul ci biir gaal bi lañ ko ëmbee du dëgg am benn téere bu ñu naan alfu layla wa layla ne benn jigéen dafa tëdd nit ku ñuul mu feebar euh, après mu séyeg golo golo séyeg moom ci àll bi waaw mu ne mu feebar nag bañ ko suuree ñu ne sax bu ñuul génn mooy madiw nit ku ñuul ki sa sax bu xonq génn mooy bu mooy bu golo bi téere boobu man gawuma ko mooy alfu layla wa layla tudd naa téere bi lii yëpp dañuy minimiser doomi aadama bu ñuul te Seydina Muhammad am na deret bu ñuul yonte Yàlla Ibrahima toog na lu jege téeméer amul doom mu ñëw Égypte fii ci Afrique firawna bi mu fa fekkoon firawna bi mu fa fekkoon may ko doom mooy xaajara xaajara boobu la jël mu jural ko ismail ismail dafa ñuuloon wa i yarfo ibrahima xawaada mina bayti wa ismail ba ñuy tabax kaaba gi yaayam bu ñuul bi xaajara moo doon rooti ibra euh, di defar ay birig bu wooyee mu papam taro ci maqaamu ibrahim mu tabax kaaba gi kon kaaba gi suñu alal la kii mool biir yi nit ku ñuul la te mooy Ismaayil yaa moo doon roon ndox mi nit ku ñuul la te mooy Hajar kon kenn génnuñu kuy julli ci kaaba gi ngay jublu ki ko mool Ismaayil la ki doon roon ndox mi yaayam la te mooy Hajar kon benn bu ñuul a ko lépp lu yàlla bind Seydina Muhammad moo ci gën Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ambassadeur Seydina Muhammad nee na nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa asul usuli wal anjaali nee na daal man coow bi xaw ma ko bu baay yëpp dajee Muhammad mooy seen maam bu maam yëpp dajee Muhammad mooy seen baay téere bi mooy nuurul basar fii mati xayril basar waaw Cheikh du ko bàyyi noonu yaa may sonnal tey de nee naa lu ma wax naa tudd téere bi taxal ma taxal foofu yonent yàlla Muhammad balaa muy ñëw àddina yàlla def ko préparé nit ku ñuul moo ko toppatoo baayam dafa amoon jéebéet bu ñu tuddee ay man turam dëgg-dëgg mooy barakato éthiopienne la moo doon fóotal papa yonent bi moo ko doon sottil ndox buy raxas boppam moo koy rootal muy naan moo koy balal mu toog moo koy lalal lal bi boobu amagul soxna benn mu amee soxna kii ku tuuti la ku baaxul yàlla dina la boole ku nar a jur yonant moo doon rootal Abdullahi moo koy fóotal moo koy toggal moo koy baleel ba ni mu amee soxna di yaay Aminatu ba yaay Aminatu ëmbee ñaari weer jëm ci ñetti weer mu ne dafay dem wuti teraanga doom nawle la yàlla moom ko ci àll bi kero bi soxna si wasine moom ak ummu shafa ñoom ñoo sang seydina muhammad loxo bi ko for mooy ummu shafa jébbal ko ay man dem soog a wut ndox fekk yàlla fóot na ko ba mu set wecc ñu soloo ko ay mbubb fekk yàlla peñe na ko fekk am na ay bëñ doom dafay judd soog a dugg néegu góor moom dafa judd fekk dugg na néegu góor doom dafay judd ñu sang ko fekk moom dañ koo sang ba Umu man jël ko dem teg ko ci kaw lal bi mu dem toggal yaay bi ruy mu naan kooku nit ku ñu loon Umu Ayman moo doon boot Seydina Muhammad moo ko doon sang moo ko doon fóotal moo ko doon defal yépp ba muy tukki yaay bi na ko comme sa baay dundatul nañu dem nga seet nijaayu say maam ba bani àdd bu najaar ca yasrib te mooy na léegi laata ñuy dellu si ndeysaan biir bu métti dal yaayam mu faatu kër bu muy faatu lu triste Muhammad mi ngi toog ci witi yaayam bu yëkkatee loxo bi mun a yàcc daanu ci kaw bu yëkkatee tànk mun a yasar mu teg loxoom ci dënnam yaay ju nokki baa ngi wàcc mu ne ko Umu Ayman lii lan la eh. mu ne ko lay wax kon yombul waaye du jomb suñu gise bu mujj muy tey yaay bi ne ko Umu Ayman mu ne ko mu ne bokk mu ne sama mbokk bu ñu dundatuloon te yow nga dund xam naa Muhammad du musa sonn mu ne ko sa ween yu ñuul yi euh, fer na mu ngi ci juróomi at yu jëm ci juróom benn at waaye léegi taa na ko di bàmbaane di ko teg sa ndigg bu demee ba timis jegeñ nit ñi dañuy fàttali ko seen souvenirs yi euh, jirim diis na baayoo gën koo diis bu timisee kenn ku ne dangay ngay ko sa baay da ngay ko sa yaay même ganaar bu dàqee ay doomam bu heure boobu jotee dañuy yool yooli mu ne bu heure boobu jotee na nga sol sama mbubb yi nga woddoo sama sër ni ma doon kaalawoo nga kaalawoo xel a mun a dal nga boot ko di ko di dox ak moom ci mbedd bi mu ne ay man dénk naa la Muhammad tey mooy sama gise bu mujj ak moom waaye xale bi yaakaar naa ëllëg jamono dina ko wuyu waaye wóolu ma loxo kenn ci moom bu dul sa loxo yi ñuul kukk yi ci nii la aminatu génne àddina ñu denc ko ci abwa booba yonent bi am na am na ñeenti at am na juróomi at ba jëm juróom-benn tànk yi bu ko bootee dafay lang euh, mu daal di ko di ko bàmbaane yonent naan ko anta ummi baada ummi yaay sama ndey gannaaw ndey bi ma ëmboon anta ummi anti anti ummi bu dee góor la anta waaye mu ne anti ummi ba ada ummi kii ku ñuul la woon bu nit ku ñuul xeebu woon kooku du bàmbaane Seydina Muhammad bu nit ku ñuul doye di woon kii euh, du bàmbaane Seydina Muhammad kii du ko aayoo aay ci la ko àndilee maamam te mooy Abdul Muttalib suba teel mu yee ko sang ko boot ko daal di ko ànd ci weti kaaba gi teg ko ci weti maamam euh, buy lekk mu koy sexal di ko dindil ay yax ñu teg ci ñaaret kooku tam faatu yonent bi delluwaat ci moom mu daal di ko yóbbul baayam mu ndaw te mooy abu taalib pàppaay seydina ali yonent bi ko am jom la mu ñëw ci umu ayman ne ko umu ayman ne ko man bëgguma nekk gàngal bëgguma di aju ci nit ñi ñu may defal may lekk rek dama bëgg a ñaq tedd liggéey jëriñu dama bëgg waa màkk yëpp dajale seeni gàtt ma di ko sàmm ñu may fay mu ñëw wax ko bàyyi taxam mu ne ko Muhammad xale nga mu ne ko xale du tee nekk kilifa mu ne ko ko la xelal loolu mu ne ko ummu ayman mu ne ko yow kilifa nga waaye amoo ay amoo alal sa doom yi dañoo bari bàyyil ma liggéey ci lañ duggee ci mbedd màkka yi ku am béy ku am xar ñu àndi ummu ayman keroog mu dugg ci néeg bi génne sër yaay aminata sër bi mu woddoo ba muy faatu mu daal di ko yonent yàlla Muhammad keroog sër boobu la def kaala mu jël yatu papaam mag ñëpp génn naan bu Abdoulaye doon dund lii du am mu ne Abdoulaye deewul ndax ay am di jàmmoom ñu ngi fi kon loo doon defal sa baay gisoo sa baay defaloo ko ay moromam sa baay bu doon dund doo leen ko defal képp ku am ay xaritu baay baax na ci la bokk ci la bokk ci la bokk képp say moromu bàyyi ñi ngi dund sa bàyyi dundatul la nga doon defal sa bàyyi la nga doon defal sa bàyyi defaloo leen kon sa bàyyi bu doon dund doo leen ko defal mu ne yéen a ngi ni yéenee samay bàyyi samay ànd jàmm yaay a ngi ni eh, bàyyi leen ñu dem ci eh, nii ci la Mouhamed Sàmme ba weer dee mu ne ummu ayman kaa kaay gunge ma mu gunge ko mu dem jox yëpp baayam bu ndaw mu ne ko doo ci jël dara mu ne ko bu Ablaay doon dund du ma jël mu ne waaw sa kàddu yi ku lay xelal mu ne ko ummu ayman kon lii doy ñu nit ku ñuul benn mu amee xadijatu radiyallahu ba mu taxu kër xadijatu ummu ayman taxaw moom foofu ba diina dikkee jigéen bu ñuul bi njëkk a gëm yàlla mooy ummu ayman lislaam tàmbali am am ku nekk ci dëkk ñu ko dee Bilaal bun Rabaax euh, ku ñuul la woon éthiopien la papa moo tudd Rabaax noobu la woon dañ koo sàcc dem jaay ko ñu jënd ko Bilaal judd ki ko moomoon mooy bu bun Xalaf dafa doon téye Bilaal di ko jaaxaanloo ci tàng-tàng màkka bi teg xeer ci dënam naan ko ug fur bi ilaahi muhammad weddil yàllay muhammad bi nga gëm ci humbal ak laata ak manaata dana dem ba du mun a wax allahu ahad mu naan ahadun njëkk a dugg ku ñuul njëkk a dugg aljana laa ilaha illa allah yonent daf ko ne loo bëgg yowmal qiyaama ma ñaanal la yàlla mu ne li ma bëgg yowmal qiyaamati nga yéeg ci kaw alburaaq man ma téyel la noska bi ñu xam ne ki la téyel mooy bilaal ma omal la ba nga dugg aljana bu président di dugg ci pale bi chauffeur mooy njëkk a traversé wala président bi chauffeur bi moo nekk ci kanam président soog a dugg kon euh, collectif euh, pale présidentiel chauffeur mooy njëkk a jàll président soog a ñëw kon bilaal dafay dugg mu xam topp ci kaw alburaaq lii doyuñu ci négritude l'islam ba mu demee ba am juróomi at bu timis jege ña nga wax ma ko ba l'islam demee ba am juróomi at ñuy ñuy faagaagal julli di dañuy toog di xoolante duñu gisante day mel ni saxat moo nekk seen diggante ngir xiif da gis kuy dugal loxoom ci bëtam di génnee weñ bu dee ngir xiif ñu rey benn jigéen te muy sumeya abu jaxle def ko fer mi ngi toog mu puus ko ne ko caga bu bon bi dara topp loolu la Seydina Muhammad bu dul taaram bi mu ne ko bu yeboo waaye day gëm naa ko mu jël xeej daal di ko dëbb ci awraam ba mu génn ci gannaaw rey doomam te mooy te mooy Ammaar bàyyi baay bi te mooy Yaasir abu Ammaar yonent ne kaay leen ngeen dem Afrique kaay leen ngeen dem ci nit ku ñuul ya am nañ buur bu ñu tuddee Néges mooy Najaashi turam dëgg-dëgg mooy Ashama bun abjar najaasi mooy seen titre ku falu Égypte Firawna lay tudd ku falu Iran Kisra lay tudd ku falu Kajoor Dammel ku falu Ndukumaan Bëlëb ku falu Kajoor ku falu eh, fële Waalo Barak ku falu Fuuta Almaami ku falu Bawol Teeñ ku falu fële ci romain yaa ngi tudd César moom la njëkk xotti biir yaay mu judd moo tax ku ñuy xotti di sa biir ñu ne césarien kooku mooy César sëñ Tuubaa mi ngi koy wéy <coughs> nuurun azimun nga naan tuuti waaw bismillah xayrul xadim mi ngi koy woy ne naka ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam mooy da ngay toll màkk yaa ngi gis pale bu César li mooy leer nekk Dakar di gis pale ba ca Abuja ca Nigéria ñu ne sëñ Tuba foog nga bind de mu ne nuurun azimun bihi qad yura bihi qusura qaysara man kaana fi ummil makkata xayrul xurumi yal na yàlla fay xayrul xadim kii lu mu wax lu am la moo joxoñ borom bi subhaanahu wa joxoñ sayidna muhammad ne ko antal karimu anal xadimu daxaan udiimu fii ka sanaa yi yal ko yàlla fayal ku ko weddi danga xamul suñu mag ñi kenn melul ni ñoom Maodo Malick limaamu laay ca yoof man alajab lay ñes leew na ñeseen cheikh al islaam cheikh amul fuuti taal amari ndaat sekk ca Ceneba Cerno Sirajuddin Muhammad Saïd Ba ca Medina Gunaas subhaana zil mulki malakut dañ ko fees la tepp moo tax ñu am jàmm ah mu ne dem leen Éthiopie fukki góor ak benn ci li gën a wér fukki góor ak ñaar ci gën a siiw ak ñeenti jigéen doomu yonte bi ci la foog ci la bokkoon mooy ruqiyatu ak borom këram te mooy Seydina Ousmane ci ñoom góor ñu ak jigéen yooyu ci lañu ñu làqatu ba ñoo jidda ñu jël gaal di ko jow daal di romb màkk réewu màkk romb Égypte romb Soudan ba ñëw fi ñu tuddee tey ñu ñi sonnoon nañu Afrique lañu daw làqatu lu tax demuñ ci arab yi nit ku ñuul dafay ko set dafay ko sell dafay ko piir nit ku ñuul du fen du rambaaj nit ku ñuul piir xeet yëpp ci moom lañ bawoo nit ku xees dafa yëbb hmm? soxna si mbaa merul damay ragal ñu conférence dem kër ga mën a doo reer te comme moom dafa xonq <laughs> alhamdulilah lii laa bëggoon ngeen ree tuuti tempérament bi wàcc euh, am na ñu daanu am na ñoo xam ne ñoo leen gën a daanu mënatuñu muñ dara waaye ree ngeen récupéré ngeen pédagogue noonu lay waxee jaa ngeen jëf ree laa bëggoon ci yéen mutawalli shaara yi noonu la doon def kiis ki noonu la doon def reeloo ay nitam ñu kontaan ne sëñ bi moo doon ree foofu walla góor gi fekk sëñ bi mu ngi ci biir bàmmeelam nga koy déglu nga ne keroog kontaan na bay reer déggoo baat bi sa sët na la maam fekkee nga ko mën a fekkee naa ko kay sëñ bi xam naa ko lii dafay neex nga génnee sa photo génnee sama photo hmm? moo tax du ngeen ma bàyyi tey ma nuyoo ma nuyu nit ñi ah? <laughs> am na ñoo xam ne ñëwuñu ngir dara nañu nuyoonte rek am na ñoo xam ne ñu gisante ak yow rek fuul bi bari na waaye fu ma daanoo ngeen yëkkatiwaat ma rek may nuyoonte ba keroog may pare rek walla protocole bi nangu ah day xaw a doy kon baax na ma yolle ko kon <laughs> aywa ba ñëwee Éthiopie ñoom ñoo leen dalal waa Màkka andi ay neexal jox ko buur bi ne dafa am ñu yàq suñu réew ñoo fii bëgg koo yàq mu ne am na ñu fi nekk bu ko yàq sama réew ñu ne ahan kay mu ne dem leen ba suba nga ñëw mu jël àddiyee yëpp suba teel waa Màkka dugg daal di sujuut saxaaba ja jaafar daal leen jiite ñoom Ousmane bun Affan ba ñuy dugg rek dañoo yëkkati seen loxo ne asalaamaaleykum waa Màkka na gis nga ni ñu réyee ñun dañoo sujjuut waaye ñoom ñu bañ a sujjuut ma ne lu tax yéen sujjuutu leen ñu ne jé daal teg ko ci suuf ki ko moom mooy yàlla waxu mu sujjuti loxo yi de déedéet Cheikh Abdou Qadir Jeylaani wax na ci lu leer mu ne sa ñaq ñaq nitu yàlla bu la laalee mu ne foofu safara du ko laal moo tax taalib yi di fóon seen loxo sëriñ teg seen jë ci loxoom moo tax euh, soxnay sëriñ si nangeen ngeen góorgóorlu yàlla mun na leen may texe seen ñaq bi jaxasoo ak ñaq kilifa yu baax yooyu bu leen fooyee seen borom kër yi hmm, bu leen leen fooyee nitu yàlla valeur la bu la ko yàlla mayee euh, del ko del ko ñongal moo tax sujut gi suñu mbokk murid yi def araamul de de du sujuti suuf sujuti ñàkk sëñ bi laal sa jëla bu ëllëgee foofu du bokk ci safara lii moo ko waral fóon bi loolu moo ko waral mu ne gi nga sujut de ñu ne sujut jë ci suuf yàlla rek ñu ne ko gis nga ñoom dañuy saaga Mariama ak Isa te yow ka orthodoxe nga mu ne yéen da ngeen di saaga Isa ak Mariama jaafar ne déedéet mu jël bisimilah rahmaani kaaha yaa insaat di ko jàng ba yegg ci mare ma buur bi daal di jël yatam daal di ko rëdd am na ñu ne am na ñu ne soccam la fell mu ne kooku li mu àndi di Muhammad ak li Isa àndi mu ne rëdd bi sax doxul seen diggante mu ne réew maa lu leen ci neex def leen ko kii nit ku ñuul la woon mooy Négès ba lislaam di seet fu mu làqu ji Afrique la ñëw moo tax Baay Ñas nee na euh, afriqiya laa tartaji xayra ahmad rasul bàyyi nee na afrique yaakaarul benn yonent ku dul muhammad bàyyi moo baax bàyyi dafa jekkoon njool ci kaw xees pecc bàyyi même bu rajo coupé da ngay dégg baatam bàyyi bu muuñee ci ron tànt da ngay foog ne melax la yal na yàlla fay moo tax moom bàyyi nee na balaa ngeen may xam ba ma tëdd ci ron suufi madina bi isa ma dafanuni fi turaabi tahaddasu laqad kaana yanwil xayra wala kan subhaanallah mu ne bés bu ñu ma dencee këram ngeen ndax man bàyyi kan la mu ne ujaawi rabban waahiban mutafaddilan wa yu'til maru mal kullu xayara mu ne yàlla dina ma defal ba ñëpp jaaxle kii kan fekk man mi ngeen doon xeeb la de Sidi Barhama man maay Cheikh al alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah kon li Afrique joxe na ko ci lislaam ñu gàddaayaat 83 personnes ak 18 femmes ñu gàddaay deuxième fois ñëw troisième fois bi lañu ñu gàddaay dem Medina li nit ku ñu la ko defoon fii mbokk yi am na fu may ñëw ne fu fragile na ngeen ko dégloo xel loi bi gën na lëmbe àddina ci nit ku ñu la ko yàlla jeexale loi bi lool àddina yépp mooy boo téye nit yóbbu ko ci iti kaaba gi ne sama doom la jeex na boo dee mu doon la boo bu dee nga doon na ko li munta nekk doom ñaar la al waladu waladaani waladul qalbu waladu sulbu waladul qalbu yarisul xaala waaye waladu sulbu yarisul maala doomi ruuxu sa xaal lay doon moo tax gis ku faatu fii nga toog ay at nga gis ku mel ni moom feneen ay doomam duñ mel noonu waaye jàmbur ko doon fekk mbëggeelam ci nitu yàlla ba moom la doon doomi ndigg nag moom alal lay doon dafa am ku romboon benn nit ku ñuul bu ñu dee Zeyd bun Harisata daal di ko sàcc fitiri séeréer ah ñetti minute moo ci des ma yàggale lii rek bii rek ñu ñaan euh, bëggoon naa ko développer lool euh, tudd ñi ñuuloon yépp waaye ngeen may ma ci kii dafa am ku ñu sàcc ñu ko te Zeyd bun Harisata am baa daan fitiri loolu walla am baa Euh, kon bu timis jotee rek ñu ñaan euh, ma dellu daara ja incha allah taala jot na nee na ñetti minute moo ci def ma yeggale lii rek waaye quand xam ngeen négritude mooy lan Zeyd bun Harisata dañ ko sàcc dem jaay ko Xadijatu jënd ko may ko naa Muhammad yonent ne man duma ma am jaam dama dikk ngir décoloniser waaye dikkuma ngir coloniser nit ñi mu goreel ko kooku ay papam di ko wut ay papaam di ko ba ba dégg na mi ngi kër Seydina Muhammad ñu ne dañoo jël seen doom alal baa ngi ne ah Muhammad ne man de soxloo ma ci alal man goreel naa ko seet leen mi ngi noonu bu ngeen ko bëggee yóbbu yóbbu leen ko Xadijatu moo ma ko may ñu ne Seydina dañuy dem Seydina man du dem de li ma gis ci kii ci jikko yu rafet dëggoom yërmandeem mbëggam nit te suñu réew ma ay sàngara ay gumbe ay taaxuraan ay ndàmb mband ne duma ko bàyyi ne dem feneen ñu ne ko njaam moo la dàqal mu ne déedéet du njaam de kii li ma gis ci mu gisuma ko ci kenn yonent bi kontaan def ni arab yi doon def tey loo xam dem ci hijr ismail ci weti kaaba gi ne zeydu ibni zeydu sama doom la tey bu ma dee dana ma doon bu dee dinaa ko doon ñu ko tuddee zeyd bul muhammad yàlla bëgg a jeexaloo ci àddina bi yonent bi jël doomi bàjjanam baratu turam dëgg-dëgg mooy Barawa ñu naan ko Zeynabu bintu Jahsh doomi bàjjanam la ki ko jur mooy ma ak Abdullahi ki leen boole jur mooy Abdul Muttalib mu may ko doomi bàjjanam seetal nit ku xonq mu ngi sëyal nit ku ñuul xam nga apartheid nekkul foofu de racisme nekkul seyd Muhammad mu mu jël doomi bàjjanam may ko ku ñuul kooku kooku ne du ci dal yàlla wàcce aaya ne ko aha lii kenn la yàlla wax mu soog a nangu soxna si dafa rafetoon rafetaay boo xam ne fii yéeme na jaba bu rafet nag problème la de euh, Socrate ak Aristo nee nañu mu ne moom buggul jabar bu rafet ñu ne ko tam mu ne jabar bu rafet mu ne fleur la fu weñ naawee tong ci fu yamb naawee tong ci fu gënër naawee tong ci day doon koo xam ne dafay exposé wu góor ñi feebar yëpp dañuy dañuy fàq topp ko waaw waaye loo def jabaru jàmbur daañ ko def ci sa jabar de loo def ci bàjjanu jàmbur ñu def ko sa bàjjan lépp too faytoo kamaatu diina tuddaan kon na ngeen fegu seen njaboot gi mun a fegu yàlla na yàlla may njaboot gu fegu soxna si sonnal ko lool ba di ko tere boppam ci lal li metti na ba ko yonent bi yégee yàlla na ko nee ko jigéen bu teree boppam borom këram ba njël malaykaa nga koy rëbb bi bët sa te malayka ku mu rëbb da ngay texe de jëm dana ñaaw bant bu mu joggi daf koy muulu te buy dee dafay sànni baatam sow lay jëm wa asaabu shimal ma fii samumin wa hamimin wa zilli min yahmumin laa baaridin wala karimin lu tax dañoo nekkoon mutrafiin topp seen bànneexu bakkan maa moom sama bopp danga may jox benn chaîne or wala sama biti bi nga ubbi ko mu fees boo jëlee alal gu la lewul loo munti liggéey ci alal dafay mujj seey sama bitig bi jaaratul alalu jàmbur la da nga sàccoon dépense bi doon kotomal di def ndey dikkee maa ngi jéggalu di teq dépense di def ay ndey dikke alal googu du barke mukk même boo fayalee sa doom jëndal ko ay kaye ndaare lay jël bu demee examen nga ne moom de ni muy jàngee moom amul kaye ba moo daganul moom de ba mu tàmbalee di wut liggéey ba léegi amul big ba nga ko jëndaloon ci alal gu lewul moom la dem naa ci sëriñ bi ñaanal na ko waaye moo jël ndaare lu tax du jël ndaare da nga teq ci dépasse papaam dépasse bi nga waroon a jox waa kër gi ñu lekk ko doo suukar seen fonde doo xorom seen seen maafe nga di ko def ci ay ndey dikke ne da ngay defar ay bitig da ngay tukki ay Dubaï da ngay dem ay Las Palmas da nga dajale yàlla daal di la ko tegal feebar nga faju ba mu jeex mu wàccel la cancer cancer ci ween bi wala mu tegal la hépatique la tudd hépatique la yaa ko wax de fëggal sa nopp bi <laughs> waaw mu tegal la jabet ñu dem dagg sa tànk ngay faju tànk ba dootul ñëwati mukk teg la eh, feebar eh, ci rein yi bés bu ne nga dem joxe eh, dix mille ñu daal raxsal deret bi ndax alal bi da nga ko jël ci ku mu lew nga dugal ko ci lu lewul mu jox la ko pour nga def ci njaboot bi nga def sa bopp ñu lay naxtaan rek demal ubbi bitig demal def ay salon coiffure demal demal dubee demal fële nga dajale bi am ay centaine de million yépp yàlla wàcce la jàngoro ngay fajur yaa ngi Chine tey yaa ngi Amérique tey ñu dagg sa tànk sa bët bi ñu dindi ko nga daal di paralysé toog ci benn piliyaan nga bëgg tuub dootoo mën a tuub béy wee na mbuus kon jigéen ñi na ngeen moytu li ñu leen di jox def leen ko ci njaboot gi waaye dépasse may jox dama koy kotom kotomal bu ëllëgee bu dee wala mu fase ma ma def ma monte dara du la jëriñ du ndaw si sonnal Zayd ndekk yàlla dafa mo dafa bëgg ndaw si sonnal ko pour bu ëllëgee dana ko fase yonent bi jël ko bu ko jëlee ñu ne Muhammad jël na doomu jabaru doomam ngir luwaa boobu mun a jeex soxna si moom moo tax ñu def hijaab bu génnoon ci mbedd ñëpp di ko xulli seetal ni muy doxee mu naqari Seydina Muhammad kenn bëggul sa soxna kenn di ko jegeñ ku ko wax ak ku ko waxul waaw li nga def ci moom danañ la ko fay de di dégg ni muy ree di xool ay cëram keneen di xool sa cëru jabar noonu mu ñëw ci yonte ne ko soxna sonnal na ma daf may tere lal damay tere nangam yonte ne ko téye ko jigéen ci biir say ñaar la jigéen ci biir sëy ñaata la ñaar ki ngay jaamoo yàlla ak ki lay jaamoo yàlla ki lay jaamoo yàlla mooy soxna dafa lay jox lu lekk lu neex nga lekk du ci def saafara du ci def sunguf du ci def reen ah seen ji màdd yooyu du ci def dara seen gi buy yooyu du ci def dara seen gi bisaaw yooyu du ci def dara boo saqalee sa mu daw ne eh, góor gi lan la du la ŋóo bi du la ciipatu du la ŋeleju du ñëkkal kanam ci sa kanam buy wax ak keneen neexal baatam buy wax ak yow daal di koy riiral mel ni barigo pour naqaral la déedéet kii mooy jigéen bu lay jaamoo yàlla mooy soxna yàlla na yàlla mooy ay soxna jigéen bi ngay jaamoo yàlla nag mooy ki lay toroxal jigéen bi lay gàcceel di la sëngemloo di la ciipatu di la merloo di la diiju di la naqaral di la toroxal di la déshonorer foo ko xalaat ak foo ko xalaat mi ngi dox rek xanaa gisul diw xanaa gisul diw yàq la yàq sa image comme nga muñ ko nga yéegi ay maqaama Cheikh Abdou Qadir Jeylaani soxnaam jëloon na ay téeram dugal ci cin togg ko kenn ci ñun soxnaam defagul loolu kon nañ ko muñ Abul Abbas Ahmed bun Muhammad bun Mukhtar as-Salimi at-Tijani coonam yi gën a ëpp ci àddina jigéen la nitu yàlla yëpp jigéen moo leen fitnaal fu nitu yàlla toggee jooy jigéen ci la bokk Cheikh Ahmad Tidiane dafa mujj ñëw be Maroc bàyyi Algérie moom du marocain algérien la ay nomade boo boo jëlee oto da ngay wàcc Bamako nga jël oto nga dem Fana nga dem Zan kii nga dem Ségou Zan Bla Sofara dem Tombouctou wala nga dem euh, nga dem gaaw nga dem Mineka dem Timyamin Mali je euh, Tawdin Mali jeex nga dugg Tamarachet Aynu Maadi Cheikh dafa gàddaay ngir jigéen ngir coono képp ku ko bugg a jot ci soxnaam ngay jaar mu bàyyi lépp ñëw Maroc booba jaam jeexagul mu jënd ñaari jaam mabruka ak mabarika kii jural ko Mohammed Kabir ka la jural ko Mohammed Sarir nuuhu jigéen moo ko fitnaloon ah luut jigéen moo ko fitnaloon daraballahu masal lazina kafaru imraata nuhin wa imraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibadna saalihayni yaa ko wax de fa xanataahuma soxna si yoon ne ko boo tuubul booy dee sa baat yaa ngi koy sànnee càmmoñ de te képp ku dee sa sukaraat sa baat nga sànnee ko càmmoñ dangay ngay texadi wa asaabu shimal ma asaabu shimal fii samumin wa hamimin wa zilmin yahmumin laa baaridin wala karimin innahum kaanu qabla zalika mutrafin dafa doon diiju jëkkëram dafa doon fitnaal jëkkëram wa kaanu alal hinzil ah surun alal hinzil azim jërëjëf yàlla na yàlla fay bon lañ doon tegaate moo tax dañuy paralyser yàqu balaa ñuy dee si soog a noppal jëkkëram tuuti waaye taxul kara ba muy dee moom mooy ki njëkk faatu gannaaw yonante bi ci ay soxnaam ba mu ko fasee rek yàlla ne Muhammad yaa ngi nëbb loo xam ne yàlla dina ko feeñal soxna si jël ko pour ñu xam ne Zeydu du sa doom sa mbaax moo taxoon nga ne sa doom la yonent bi jël ko coow ne kur Muhammad jël na doom jël na jabaru doom loi boobu ci nit ku ñuul la jeexee boobu soxna saa ngi ci fanweeri at ak juróom mu dund juróom fukki at ak ñett moom moo njëkk faatu ci soxna Seydina Muhammad gannaaw Muhammad waaye ba mu buggee faatu mu sonn te sa yonent bi denc na ko de waaye coono gi mu sonnal kële bàyyiwu ko te yonent yi denc na ko de seen ñaari waajur ñoo bokk benn baay doomi bàjjanam la Seydina Omar yónnee ko fukki junnit ak ñaar mu woo mu woo miskin yëpp ñaanal leen ma ngir mu mën a yeewee ko sama sutura sama sukuraat métti na tuñ yëpp daal di rocceeku ndekk boo ko joxee ndox mu sedd day tàng ci moom fii samumin wa hamimin mu dem woo doomi kooku te mooy usaamatu bun zeyd ne ko sa bàyyi de sonal naa ko lu nekk ba mu fase ma yonent bi jël ma mu ne waaye damaa bëgg bu ma dee na ma Omar julle yow ak sama doomi càmmañ Muhammad bun Abdoulaye euh, bun Jahsh na ngeen ma wàccee ci bàmmeel nga jéggalu nga wuutu sa papa jéggalu ma ne papa kii de sa soxna la woon balaa yonent bi di ko jël solnal na la jéggal nga ko waaye maqaama ak martaba du jéggale mun nga jéggale sa maqaama du ko jéggal mujjam daal di ñaaw ñii ñoo ko tëral ci biir bàmmeelam kon kii loi boobu ci nit ku ñuul la ko yàlla jeexale général bi gën tuuti ci àddina bi nit ku ñuul la woon mooy Usaamatu bun Zayd boobu mi ngi ci fukki at ak juróom-ñett jëm ci ñaar fukki at yonent bi kii la mujj a takkal drapeau balaa muy dem mu faatu Omar ni ne Aboubacar doo tekki drapeau bi kii xale la de te ku ñuul la dañ koy xeeb de Omar ne ko drapeau bu loxo Seydina Mohamed takk man sama drapeau tekki sama loxo tekk xanaa man damaa rep. keroog kaalaam la jël yeew ko ci ndiggam dugal dugal dàllam ci ndiggam ci kaala bi solul dàll mu ne ko yonent bi fal moom bu koy gunge du sol dàll te kii mooy Abubakar Zeyd kese lañ tudd ci alxuraan te nit ku ñuul yàlla ci cent vingt quatre mille sahaaba yàlla tudd jaabal ci turu kenn ci alxuraan bu du Zeyd te Zeyd ku ñuul la woon lii du ñu doy général bi gën a tuuti nit ku ñuul la woon mooy ki mu takkoon un drapeau kon lii dana doy euh, ki yore woon soccu Seydina Mohamed nit ku ñuul la woon te mooy Abdullah ibn Mas'ud moo doon yore soccam moo doon yore dàllam moo bu doon sangu ci àll bi moo ko doon sampal kaala ku gàtt la woon tungu ne la woon moom lañ njëkk a dagg noppam ngir jottali alquran moom moo dagg bopp ki ko daggoon noppam mooy Abu Jahl kon incha allah maa ngi ciy bind téere euh, ci négritude euh, bu lislaam incha allah ëllëg yéen baladul ami yéen a koy traduire def ko anglais français espagnol perse ni ma leen yaakaaree yàlla bu yàlla tax sama yaakaar ëllëg jotaay bi dina doon ay fan ngeen def benn saañ benn mbaneetu jilaani ngeen ñoo mottali ko fii ëllëg euh, semaine culturelle lay doon fekk man nekkatuma jamono euh, ngeen ñoo tiim sama bàmmeel na góor gi waxoon nga lii tey ñu ngi koy def danaa leen dégg naa leen dégg naa leen dégg naa leen dégg ñaan naa ko yàlla te yàlla nangu na ko bu ngeen ma tiimee lu ngeen wax naa ko dégg naa ko dégg du ma xaamalay xaccee damay jeexal si rek am na benn américain bu ñu dee Malcolm X Malcolm X you know Malcolm X mi ngi judd le vingt neuf mai mille vingt cinq criminel la woon waaye ci kaso la tuubee ku bañoon tubaab la ngir dañ ko bañoon kaso bu nekk tëdd na ko drogue bu nekk naan na ko sàngara bu nekk waaye ci biir kaso la tuubee mu topp ko ñu tudde ilaaja mooy sëriñu lii farakaan lii farakaan sama am di jàmm la suñu gisee bu mujj mi ngi nekkoon benn razi ci libi ba mu tuubee ba 1964 ci la aji jee Makka ndeysaan xale la dafa niroog Cheikh Anta Diop moo tax man ma bugg ko lonet yi muy sol comme Cheikh Anta moustache bi comme Cheikh Anta mu dem aji Makka ba mu ne tëll xool kaaba gi dafa daanu yuuxu comme que la ni mu yuuxu wóoy ñu ne ko waaye do you cry lu tax ngay yuuxu mu ne ay crying because I see the Kaaba is black danaa yuuxu ndax damaa gis kaaba gi dafa ñuul yin ci anglais euh, ing mooy luy continuer looking uh, talking asking going mooy loo xam ne dafay continuer dem waa na ko waaye duy cry lu tax ngay yuuxu mu ne ay cry ay crying damay wéy di yuuxu because I look the Kaaba is black damaa gis Kaaba gi ñuul mu ne stone xeer bi naya de Kaaba xeer bi nekk ci di Kaaba gi mu ne is black mooy xajul asad bi ñuy fóon mu ne suun mooy xeer bi neex ci wetu kaaba gi is black mu ne soo I am a black man damaa ñuul mu ne I believe my God is black gëm naa ne sama yàlla dafa ñuul allahumma salli ala sayyidina allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله